gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal di fàttalanteeg bokki jullit yépp lenn ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu tànn ca benn boo xam ne bu dee mbubb ku ko sol ku la séen dana la bëgg lool waaye ku jaxasoog yow itam duutu la mën a bàyyi yàlla na nu ci yàlla dimbale tom boobu nag ku setantal alquran ni muy waxe ak jullit yi di ko jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam settantal dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci wax ak ci jëf ak melo da nga xam ne boo bëggee ñu dina limaale ci jullit yi mbubb moomee fu mën a nekk da nga ko wëri mbubb mooma nag mooy li ñuy wax kersa kersa nag ak ay teggiin mën nañoo bokk fu ñu jóge bokk fu ñu jëm waaye mën naa am yoon wañ ko jaar moo wuute tuuti ñaar yooyu ana lu leen tàggale teggiin mooy ki nga jàkkaar lool cër ba nga koy jox te yàlla rek tax walla yil la tax nga xam ne ku melut melokaan yi fii ci xadara bi lëf mën na ko caa fekk loolu moo tudd ay teggin loolu moom saa bu ko ko gisatut xadara ba rek mën naa dellu ci melokaan wa meloon doonut lu yàgg ba ëpp waaye teggin nag mooy kersa nag mooy jox cir koo xam ne benn mosoo koo teg bët walla tegatoo ko bët la ngay sëq ak moom moo tudd kersa loolu nag bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk suñu boroom di wax ak jullit yi ci ay jamono yoo xam ne daa am lu xewoon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee suñu wax yéen jamono daal daa mel ni ak ngan moo fa amoon gaay yi nag di def bu ñu xëyee fa la ñuy déegoo si waxuma ndékki déegoo déego nag boo ko déggee mooy raxasu ni kuy añ di bëgg a def ndékki nag mooy sew sewaan yi xew ci jamono ji fa la ñuy déegoo si toog fa ba mu naaj ñu dem ci seen yitte bu añ jotee ñu ñëw añ dellu fa ne xam xamaaral ba kër gi sedd guy ñu demaat ay yitte fas yéene ñëw reer si waat yàlla nag ne ah maa ngi leen di dénk benn ay teggin yéen ñi di jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi ñëw gannaawam it kersa seen digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha alladina amanu la tadxulu buyuta annabiy illa an yudana lakum ila taamin gayra nadirina ina bu kenn di yër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xool ba xam rosi nañ wala déet wala ña ngay xolli wala ña ngay xeet wala déet déedéet waaye dem nañ ci seen yitte bu ñam yi noppee ku ci wërsëgam nekk daañu woote daal ku ca wërsëgam nekk nga ñëw te booy noppi raxasoo jël ca mbedd ma walakin ida duimtum isa duitum fa ida taimtum bu ñu leen wooyee ngeen ñëw jëfandiku bu ngeen noppee nee leen coow wala mustanisina li xadis inna dalikum kaana yudi nabia fa yastaxyi minkum su ngeen ko defee yonent bi dana ci am lu muy jànkoonteel loo xam ne du ko mën a wax kenn man nag maa ko koy waxal man mi nga xam ne da ngeen may dégg rek te ma di leen gis man di xam ci li ngeen di dox lépp wallahu laa yastaxyi min alxaq waa këram it su ngeen dee jëflante ak ñoom bu leen dàkkaarloo ak ñoom waa këram ña ma ci jublu mooy ñu dëkkoon ci biir kër gi wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijaab bu kenn jàkkaarloo ak ñoom di wax walla di joxe luñ la yónni woon sax buñ la yónni moom duñ la jox waaye boo ñëwit boo leen koy jox teg fa rek dañ ko jël muy teggin ak kersa goo xam ne daa war dox seen diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fi muy waxe ne ci teggin maa kaana lakum an tudu rasulallah mooy ay teggin ci diir bi mu fi nekk waaye kersa ga mooy wala an tankixu wala an tankixu azwaajahu min baadihi abada saa bu yàlla dogale yonent bi bàyyi koo fi itam kat njabootam gii moom bu kenn wax jëm ca waxuma la wax sax waaye bu kenn xool jëm ca ñoom loolu nag li muy tekki mooy kersa gu jullit yi doxale seen digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci ay melokaanam laajoon na kenn ci saxaaba yi soxnaam ku ko jege woon lool ndax ñoo bokkoon genn kër bi fi yonent bi bàyyi ko sa Saad ibn Hisham dem na ci soxna Aïcha ne ko dama bëgg nga wax ma daal ci gàtt ci lu gën a gàtt lu ma dul fàtte jikko yonent bi lan la woon mu ne ko daal jikkoom soo ko bëggee xam dama jànge alxuraan rek da nga ca fekk wa innaka la ala xuluqin azim te yooye daa bari lu ko jiitu yuy wane ne moom mi li yàlla wax ci moom yàlla moo ko gën a xam ku dul moom te ñi ko xamoon it dund nañ ko ak moom moo tax waroom xam-xam yi ne képp koo xam ne daa bëgg gën a jege yonent bi nattu jegeeg yonent bi ak soreem ko yàlla nu ñu ci yàlla musal mooy ki gën a dund njàngaleem alxuraan ci ay jikko ak i melokaan te jikkoom mooy alxuraan rek moo tax kersa gu dox diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko tàmbalee ci diggante ak boroomam subhanahu wa taala moo ne bi mu nekk gut rasulullah itam day waa Makka ña daan ñëw ak a dem ak ña daan ña dëkkuñ ci dëkk ba ñépp nangu woon nañ ne kii ku bari kersa la tax na bis ñuy defar kaaba gi ñii ne ngelaw fa jaaroon ñii ne ndox mu baree fa jaaroon reweñ ci ko ba daanaka tuutee ko tee àgg suuf waaye ba ñu koy defaraat ba teg ca xajarul aswad bi ñu defee appel d'offres appel d'offres ku nekk man ko dañ ne ñépp ko man waaye nañ def ku nekk def dara rek ba ku nekk defee dara ba mu des nag teg xajarul aswad kenn ku nekk ne maa koy teg ñu ne déet nañ def listixaar nañ nekk ba kenn koo xam ne ñun ñëpp nangu nañ ne ku bari kersaa ngi nii ku ami teggi na ngi nii ku wóor a ngi nii koo xam ne du wor du wóoruñ kooku daal bu ñëwee ku mën a doon ak fu mën a bàyyi ko ci ñun na ko ñëpp nangu sallallahu alayhi wa sallam mu ne tëll génn ñu ne waaw kee de moom ñun ñëpp nangu nañ loolu ci moom moo ko jël ci loxoom dem ba di ko teg ci ak matam te ku ñeme dañ koo déey mu ne déet kaay leen daal di teg genn kaala fab xajal aswad teg ca nañu xeet yépp jàpp ñu yëkkatee ndoo ko ba fa ma koy teg ma teg ko mu mel ne kon tegam googu mu ko teg ñëpp bokk nañ ca séddaat na leen cër ba ndax kersa gu bat ak i teggin waaye it feeñ na keroog bi ko suñu boroom di jox julli yi juróom ba mu taseeg Seydina Muusa wax ko yoonam mu ne ko juróom fukk la mu ne ko yii demal ñu wàññi ko loola suñu boroom moo ko ci jublu doonut lu dis yonent yi ba mu nangoo dem di ko wàññilu déedéet doonut it lu Seydina Muusa xam ne lii daa ëpp ci yonent bi déedéet yàlla ko jaarale noonu rek lépp ay sabab la waaye ba mu naree doon juróom yi mu doon yonent bi baat bi mu jëfandikoo mooy da ko ne am naa kersa sama diggante ak sama borom di dem ak a dikkaat rek kersa moo tax loolu da ko doon xool di ko jàngale ba bis fekk na ku julli ba sëlmal yëkkati ay loxoom di ñaan soxlaam ba tifli mu ne kii moom gën a yàkkamti kaay ma wax la lu ñuy ñaanee loolu it ku ne mën na cee dégge maa ngi bu soobee diw wala maa ngi ñaan ci diw mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko boo julleetee ba sëlmal wala nga bëgg a ñaan yàlla rek wala nga bëgg a ñaan rek da ngay jëkk a bàkk yàlla wan ko ni mu toll ci sa dégg ba mu wóor ne la wuute na ak ñi tudde ay wóor ak i waroom mu wuuteeg ni ñuy kañe nag ak a bàkk suñuy wóor ndax ñun suñuy wóor ña ci jiitu ñu yàgg ña am na suñu bu ñu leen di bàkk danañ ci dugal baat yoo xam ne da ngay war da ngay xam ne kii dañ ko naan buur la rek waaye du buurub dara ndax léeg-léeg mu gañe léeg-léeg mu perdre foo déggee ñu ne yaa dàq diw moom moo fa gañe moo dàq diw dàq diw dàq diw waaye foo déggee ñu ne moo dajeeg diw yam ca dañ koo dàq wala sax ñu ne barab sàngam moom daa wala bëti laa bi fasam kon dañ koo dàq waaye loolu fekku ci subhanahu wa taala mu ne ko booy ñaanate da ngay bàkk yàlla sa kem kàttan wan ko ne yow daal wan gi nga ko koy wan nag tekkiwut ak ñàkk ko xamam waaye xamoon na ko bu yàgg nga xamal ko ne yow daal yaa yaway waaj yaa yor lépp budul yow du kenn li xayrika la nashku ilaahal wara amra soo noppee nga julli ci yonent bi ndax ndigalam la inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima su ko defee nag boo jaaree ci yaar yooyu boo noppee lu la soob ñaanal li mu ko sant ci suñu borom mooy suñu borom dafa am kersa gu war a dox digganteem ak nit ñi kersa gu nit ñi war a dund digganteem ak ñoom maanaam ay ndigalam ak tereem mu wóor na la mi ngi la teg bët rek nga di ko ci bàyyi xel loolu mooy kersa gi dox diggante nit ki ak boroomam waaye la muy tere it nga fexe ba bu mu la ci seen mukk donte loo def mu seen ko waaye ñun daal ñii nga xam ne ñooy ay nit moom nañ seere ne kii moom ku am kersa la digganteem ak boroomam ci ay tereem ak i digleem moo tax bu jamono dee dox ba agsi ci junju naa ko léegi yonent bi lu ko metti woon la tax na ko wooteelu bis nodd lu taw fekk julli sax jotut waaye bëgg nit ñi daje bañ ñëwee daal lam leen wax mooy bu leen ma jay na yahuud yi daan jaye seenub yonent ak ña nasaraa yi daan jaye seenub yonent dee leen ma wooye rek abdullahi wa rasulullah ndax dañ daan taxaw fi barab boobu daal nii ñu xame xame wuñ ko woon waaye dañoo am ñu daan gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ya seen maam daan taxawal di ko jaamu rek mu ne leen déedéet bu leen ma jaay lii ci ginnaaw làkk bi xaw ma lu mu doon lii ñëw suba xaw ma ca dara li weesu it bari na ci lu ma fàtte loo xam ne bi ma ko fàttali du ma ko fàttaliku déedéet mu wooyee rek abdullahi wa rasulullah doy na ma sëkk ma doon jaamu yàlla di ndawam nag moo tax kersa mbubb la mu jullit war a sol ku ko séen bëgg ko ku jaxasoog moom duutoo ko nangoo bàyyi loolu nag dugal nañu ci léeg-léeg nit bàyyi koo fi ñu naan loo xam ci moom yàlla xam na ne kersa gi war a dox sa diggante ka fi bàyyi ko kii wax sàmmante wu ca dara day sukkandiku rek ci kuulu lin naasi xusna kuñ la laaj tam bàyyi ko fi wax ca lu rafet rek waaye lu rafet loola it la ca gën mooy lay dëgg rek la ca la gën a rafet la ca gën mooy lay dëgg waaye loo xam ne tey ki nga koy wax ci moom su del si woon da nga ko teg gàcce ndax waxal nga ko loo xam ne moom sax ba muy dund xamu ko woon xamu ko woon waxuma la di ko jëfe waaye nga takkal ko lépp lu rafet lépp lu baax lu baax la lu neex ci ñi koy dégg la waaye kersa war naa am suñu diggante ak ñi nga xam ne bàyyi ko nañ fi ba buñ la ci laajee nga wax ca la nga ca xam te yam ca képp bañ caa ëppal ba bu tey bu ñu ko delloosi woon mu ne yàgg ndax wóor na ko ni lii ñu koy waxal defu ca dara xamu ko woon sax far moo tax kersa di jikko ju am solo ci ab jullit waaye bokk na ci it lii nga xam ne moo xew léegi muy miin gi ñu miin alxuraan ba kersa doxatu suñu diggante ak suñu borom jaarale ko ci alxuraan nu way neexe ŋàbbe ko na fu way neex teg ko fa fu way neex tudd ko fa jànge ko fa te moo ne ñi ngi bañ lool kuy dugg ci wanag sax yor jaaro boo xam ne dañ caa bind lu laal ci turu yàlla waxuñu tur yàlla li koy nit ñi waaye waxaante wuñ nag alxuraanul karim bokk yi am nañu ñu yor ab kaamil ba soxla seen bopp ne capp ci ab miir miirub jàmbur koo koy doxalewut kersa diggante ak borom miir ba def la muy def jëlaat ab téereem da ja wéyal ko yoonam wala mu yor téere yi nga xam ne mag ña ko bind te mbindum suñ mag bi fes ci lool bu dee ci yenn barab yi nga xam ne juróom juróom ba juróom benn yëf yi yàlla santaane ci alxuraan ab jullit di ko wéttilikoo ma nga ca ne gàññi muy tudd yàlla ñaan yàlla jégglu yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak seeni bokk waaye yooyu yi doxalewuñ ki seen di genn kersa seen diggante ak mag mu toll ne sëriñ bi ko bind jël ci waxtu yu bari mu ñor ko xomm jeexal ci dundam gépp ndax juróom benn weer yi lii lay def juróom benn weer yee lee waaye moom it dem na ba kersa doxatul seen diggante ak sëriñ bi ci mbindam moomu ak jotam googu mu ci def waaye nu mu leen soobee fu leen neex teg ko fa ay riwaayaat am na ci ne ca baawoon kaamil bi mu bareegul nii mu bare waaye alluwa bare woon daana am kaang yooyu dañuy fab alluwa def ko seen gegenaay alluwa yi la ñuy gegenaaw soo waxee ne ko alxuraan la mu ne alxuraan la ci kaw alxuraan rek ndax alxuraan lañ ci jëpp jëndënam bi moom la gegenoo yi kese alxuraan botte ci kaw alxuraan la te loolu waroon xam yëpp bañ nañ ne fab ab kaamil teg ko ci moroom ji sax tegal teg dara ci kaw alxuraan la moo tax kersa war naa dox suñu diggante ak suñu borom ci alxuraanam ji waaye kersa yi war naa dox suñu diggante ak mag ñi ci coono yiñ daj ba am liñ am ci seen diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam tam jaar ci kersa tamit may ak suñu borom. moo ne bokk na ci itam day lu fës am na ñoo xam ne cër bi ñuy jox seen kilifa te. am na barab yooyu summi mbaxana moo fa xew waaye loola tuddut kersa waaye teggin la tudd nga xam ne dañ koy sol ba kilifa gi ñëw ba tàmbali nuyoo ñu dem ba jub ko ba nga xam ne kenn doxul seen diggante ak moom ñu soog koo summi kooku moom kenn nattable wut ne bu gisut sëriñ bi it day sol mbaxanaam ne nongu nongooro muy teggin waaye nag ab jullit lu muy def te muy jikko ju rafet da koo war di bu ko xasee ba def lu mat fukki fan rek daa war a mokk muy ay teggin waxantewuñu kersa gi nga xam ne ñi ëpp ci ñi ko siqal tegantewuñ ak ñoom ay gët waaye daal li ci gën a yéeme daal mooy seereeloo nit wala ngay waxtaan ci moom di ca wax ba ëppal lool loo xam ne moom musu koo xam sax ci bi muy dund faam loolu moom mu ci gën a yéeme nga xam ne tey bu ñu ko delloosi woon ne ko diwa wax ci yow lii dana loolu de man musumaa xam ne am na ci jamono ndax bàyyiwu ko jamono te it tànkam guddee wutoon noonu ba muy ko gis fenaan di ko di ko mën a xam kon boog kersaangu noonu lu tuuti ci lu bari yàlla na ko yàlla déggloo mooy jox cër suñu borom subhanahu wa taala te tegoo ko bët loolu suñ ko tuddee dañ tudd al imaanu bil ghaib gis ko bañ ko gis nga yamale waaye yonent yi nga xam ne ñoo jiitu sallallahu alayhi wasallam ba ci sallallahu alayhi wasallam ak ñi topp ci moom ñépp ba ci mag ñi ñuy dégg ñépp dañ liggéeyal yàlla ci toolam bi ñu jox leen cër bu ñuy wax kersa doxale ko suñu diggante ak ñoom waxuñu wax waaye jëf jëm ci ñoom sax kersa war naa am ci diggante bi ndax nekkiwuñu fi woon ak neen waaye nag buñ la ci laajee moom waxal la nga ca xam boo ci xamul dara nga ne xawma ca dara ndax benn borom xam-xam nee na min al ilmi an taqula lima la taalam allahu alam ki raw ñépp mooy koo xam ne bu ñu ko laajee lu mu xamut mu ne loolu de xawma ko waaye yàlla xam na ko te am na ñëkk ñu ko xamal dem leen wari leen moo tax ginnaaw wax daa ubbiku nit danay wax ci fi mu far wala ki ko neex rek ba teg ko gàcce ndax kooku dana ñëw dana duñ ko indiwoon mën a cëpp li muy wax ci moom kooku mësu ko xam waaye wax dana bari it ba nga ba nga xotti sàkketu kersa waroon dox sa digganteeg mag ba wax ca lu ñu lay joxañe ak di la ko xoole saa su nekk loolu it ab diir bu ne war na koo moytu yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musaluñ seytaane ki bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina